Lor mom amul Aziz kenn rendiwu ko Aziz kenn jam ko liggéey maanaam kenn rayee ko rey bu ñaawit comme ni def euh, waali rek ko def dañ jam dañ ko jam ndax euh, léegi laa jóge ci morgue bi ma nga ma nga mel na ma mel kon defe naa dinko dinko rendi duñ ko duñ ko duñ ko ko jullee ni ñu ko fas yéene jullee di ngeen ko gis fas yéene ko suulee ni ñu ko war a suulee kenn rendi wu ko loolu moom ay wax rek la. mais li ñu ciy wax ne dañu ko rendi ba noppi dëbb ko maanaam jël ko dëbb ko wala ñu jël bant dóor ko est-ce que loolu am. loolu amut loolu moom amut dëgg dëgg loolu amut ndax loolu ba amoon sax def naa dinañ ko dégg ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy policiers yi wala ñi nga xamante ne moom mooy service d'hygiène yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a jot ci Aziz kon ñoom duñ ko mën a laxas ba di ko sax teg ci seen barrière yooyu di ko dugal ci corbillard bi loolu ba amoon ñoom duñ ko mën sax defaat du ñu permettre tamit sax ñu ko yóbbu ay hôpital teg ci xam wax tamit day day yenn maanaa wax bu defee it nopp yu koy dégg war a wér bu nekkoon loolu am na dañ ko yooyu am na police bi du ko mën a defar ba di ko teg seen oto ba di ko yóbbu hôpital Dalal boobu loolu yëpp suñu kanam la ñun ñoo ànd ak ñoom ba foofu kon loolu ma nekkul mhm. waaye nag comme moom nit ku siw la di nga dégg version bu nekk version ne di nga ko dégg waaye nag loolu amul te moon bokk naa ci ñi nga xamante ne ñoo ñëkk teew ci chambre Aziz ba mu gaañu waaw waaw d' accord boobu ak léegi kàddu yi bari na wax yi bari na ah te dafa jot nag nga yëkkati quelque ci ay kàddu parce que ku ne xam ne diggante Aziz ak nabu Naboulaye mhm. démb ak léegi ñu ngi tudd nabu Naboulaye ci coow li ñenn ñi lay moo fa mujj ñenn ñi ne Naboulaye moo ko yóbbu hôpital yow mii frère am est ce que réellement tamit sa xel ñaaw na comme sénégalais euh, du ci bari kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy wax waaw loolu nag du mën a ñàkk ci nit koo xamante ne dafa siw ànd nit ku siw parce que booy ànd ak ñaare nit ki dañ naan la mu la teg bët waaw booy ànd ak nit ki ñaareel dañ naan la daf laa teg bët kii bëggu la ki sa noonu privé privé la kii dalay siiñ te fekk encore ñun Nabou Leye amuñu benn arrière pensée su ñun ci moom parce que gisuñu ko ci moom Nabou Leye ñun suñu kanam fii la juddoo ginnaaw raay fii la juddoo suñu kanam la yaroo it def naa bu bëggee aar mbaa mu am xemefteef aar Aziz bokk na ci ndax moom moo nekkoon ki leen di influencé fii ci ginnaaw raay tey kon bu fekkee dañ koy waxal yenn yi ka koy waxal loolu wax ak ña koy waxal loolu nañu seetaat yàlla ci la ñuy wax parce que wax dafa garaaw wax dafa garaaw trop ñu ngi koy dégg waaye nag ñun fami bi de amuñu benn arrière pensée ci Nabou loo te ñaari famille dañoo nekk ñaari famille yu rafet diggante bu rafet kon ngal la buñ ñu ko ñagasalal yàlla yàlla rek moo xam. na Aziz gaañoo na Waly gaañoo ak na keneen gaañoo loolu yàlla rek moo ko xam dramatique moom kenn mënu laa wax ne nii ak nii ak nii demee ku ci wax rek xëy na da nga am sa paste ak sa bëgg-bëgg wax di wax waaye nag yàlla rek moo xam yàlla ak ki nga xamante ne moom moo def def bi gannaaw nag police dafa nekk ci enquête ne fa nekk ci liggéey boobu jàpp guñ ko pour mu wax nii la demee naa la demee ak lu ci mënta xam bu kenn wax loo xamul bu kenn def loo xamul parce que lii kenn xamul te duma wax kenn ma wax loolu ma xamul waaye ñun amuñu benn arrière-pensée Nabou Leye Nabou Leye ñun ñoo ko yar xam ko Aziz nag kon loolu moom nekk na ay ay ay ay ay li nga koy sosal loo xamante ne lu lu garaaw la lu garaaw la waaye nag ñun yëngaluñu nag ferega ñëw ferega ñëw dëgg fa yàlla d'accord euh, ñi ngi wax ni téléphone Aziz euh, dañu ko yóbbaale maanaam ñi nga xam ne dañu def ñaaw te dañu yóbbul est-ce que loolu dëgg gisuñu ko parce que xam nga police bu ñëw di def euh, feuilletage maanaam am na ku gaañu mhm. feuilleté na kër ga yëpp wax dëgg fa yàlla waaye ay téléphone moom bokku ci jël na ay kayit yëpp yëpp yëpp waaye gis ñu téléphone Aziz gis ñu téléphone Waly loolu moom dëgg la loolu moom c'est confirmé parce que comme ñu ñoo fa nekkoon en tant que famille man ak son frère te man maa fi jur son frère mën na reconnaître gis nañ ay kayit ak yëpp lépp luy bagaat din ñu ko waaye nag gis ñu téléphone Waly gis ñu téléphone Aziz waaw loolu moom c'est confirmé ñu ngi lay di la jaale jërë ngeen jëf merci jërëjëf طبيبي قريب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 عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر أربع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أتمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى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 عموم التشفيع أجمع اكثر أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابي